سبحوا لله ما في السماوات وما في الأرض من قدوسه ذكي ولجمع في الدين رسول مثل غيره ذكي وجرنم جيما تجيما ويسا خبل خاضر باك أبدون تلوتنا moo doon na Bàmba tey donoom ci lislaam moo fonk sunna moo nu doy fa sun amaam amul moroom

ay bu tedd bi nga xam ne benn jataay la ci jataay yu am solo yu baaxoo amal ci waxtu wi ngir di ko waajale bis bu màgg muy bisu Cheikh Abdoul Khadr kon ñu ngi nuyu ñëpp te di leen siyaar di leen ndokkeel xam naa nuyoo bi ñu ngi ciy jiital njaboot nga xam ne moom lañ fekk si muy njaboot ak sëñ Mor yónni ci biir teefu waaye Touba Mbacke sëñ Mor yónni ak mboolem bokkam yi nga xam ne fekk nañ ko tey ci guddi gu jot gi ngir ànd ak moom jotaay muy nga xam ne euh, ñi nga xam ne ñooy saytu ak organiser bisu màggal gi ak. ndaje xam-xam yi ci am ñoo ko baaxoo amal muy daayira sët yi sëti Cheikh Abdou Khadr ngir fàttalante ci ngir defar ci waaye taxaw ci dund Cheikh Abdou Khadr loo xam ne liñ ci mën a jàngalee doon ngir mu amal ni njariñ mën koo jariñoo suñu dund kon jotaay bi buñ baaxoo amal la buñ yàgg def la naka jekk daan ko def ci kër mbokk yi kër yu wëllëre yi nga xam ne ànd nañu si Abdul Xaadir kon tey moo tax ñu ngi ko fii ci kër gii nga xam ne kenn la ci ñi nga xam ne seen dëkk ko muy sëñ Modou Yonte waaye li nga xam ne dëkk ku ne na ko. bu kon tey tomb bi nga xam ne moom lañ tànn ngir war koo waxtaanee. daanaka tomb la boo xam ne génnut euh, génnut Cheikh Abdou Khadre waaye génnut itam li nga xam ne moom la jotaay bi di présenté ne mooy dundal ak bokk ci dundal ak bokk la jëm kon ak bokk ak solo si nga xam ne am na ko ak àq yi nga xam ne moo am ci biir loolu la ñu fas yéene waxtaane alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu taala wa sallama ala sayidina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu te di leen ziyaara yéen ñépp am mbégte lool ci teew ci ëtt bi nga xam ne benn la ci ëtti sëriñ Tuubaa yi di jëmmal diine ak pas-pas ak mbokkoo ni ko sëriñ Abdul Ahad am na tomb yoo xam ne barab yañ koy waxtaane kenn du ko dégg ne lu tax ñu di ko fi waxtaane mel ne na sunu jataay bi loolu ci la bokk ñuy nuyu sëriñ Cheikh Touba ak njaboot gi yépp njabootu sëriñ moo Modou yónni di nuyu it mbokk ak wëllëre yi nga xam ne yépp ñëw nañ teewu ci ànd ak moom mbégte mii nga xam ne cër bu ñu yayoo la ci biir kër sëriñ Abdul Qadir Mbàkke mi nga xam ne lu baree bari moo ko boole woon ak boroom kër gi ba tax sëriñ Sidi Muxtaar mi nga xam ne moom la sëriñ bi teg liggéeyu màggal gi ci loxoom ci ndigalul ay kilifaam ren ñu tànn sëriñ Modou yi ci jataay yi ñuy waajalee bisub sëriñ Abdul Qadir Mbàkke tàmbulee ko fii ci këram ngir dundal mbokk gi fàttali séq-séq yi waaye joxe ay bind ci loo xam ne ndaw ñi war nañ koo jànge ci la mag ña doon dunde dem muy jataay bu ñu jàpp ne mag ñi tax ñu koy taxawal seen xol sedd na ci kon bu kilifa yépp teewee njaboot gi teew bokk yi teew wëllëre yi teew loolu rek sedd na xol ndax jàpp naa ne tey mbooloo daje nañ fi moo xam ne li leen barab di dajale bariwul tey nag ak mbokk ak kóllëre pas-pas ak sëriñ Touba moo leen boole. ñuy waxtaan ci loo xam ne ñun ñëpp la war a soxal kon ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaare bu baax Serigne Sidi ñu ngi koy nuyu baax di ko ziyaara di ko ñaanal sunu borom dëgëral ko sàmm ko taxawaay bu rafet lay taxaw ci liggéey bi ko kilifa yi dénk ànd koog mbokk yi ak taalibe yëpp. man nag tey ñaari taxawaay laa fi am sëriñ tubaa moo ma sant ma def waxtaan wi ñu bëgg ñu waxtaan ko fii ndax kenn laa ci njaboot gi li boole ñépp ak kër gi moo boole ñoom waaye sama way jurit sëriñ Maam Mor Seye bi bis bi amee Serigne Touba daa yónnee ci moom ne ko sa yëfa ndax yëfi sëñ moo di yónni sa yëfa la ngeen seqoon yaa ko gën a xam kon lépp ci sa loxo lay tege moom woo boole maag njaboot gi ñu ngi nii sëriñ Fallou sëriñ Abdul Xadim ak ñi ñu àndal moom sax daa bëggoon a ñëwal boppam Sëriñ Touba moo ne ko jéggal naa la ñëw gi mu gone yi ñëwee rek bu baax kon kàddoom it la àndaale xam naa yan bu diis la waaye na ma kilifa yi ñaanal kon ba mu mën ba mu mën koo jàllale ci jàmm sëriñ Abdou Lahad nag wax na léegi tomb bi ñu bëgg a waxtaan te kilifa yi santuñu ko te muy tomb bu bu doon mbubb ma ne jàpp na loolu sëriñ Abdou Khadir Mbacké radiyallahu anhu mi tax ñuy woote bis bi muy ak mbokk solo gi mu am ak àq yi ci aju daanaka lu ñu fi waxtaanu lu ne rek bu ñu bëggee joxe misaal duñ sori ci moom lañuy ñuy dellu ci nu mu ko doon dundale ak nu mu ko doon fonke te it muy loo xam ne fu ne lañ ko mën a lañ ko war di waxtaane waaye rawatina sunu bërëb yi nga xam ne coobare yàlla ak ndimbal lu yàlla defal sëriñ bi tax na ñi fi daje ñëpp ay bokk lañ jafe na lool jataay bu mel nii ña fa nekk te ñoom ñëpp bokkuñ dara koo ci topp rek balaa yàgg nga dajeeg lu mu bokk ak morom loolu ci ndam ak tawféex yi sunu borom defal sëriñ bi ci la bokk kon ñu war koo sàmm war koo dundal mbir nag balaa nga koo mën a sàmm di ko dundal faaw nga ñu di la ko fàttali nga di ko xam muy ne ci sam xel ndax nit lu mu réere rek woyofal ko kon ci bokk danañu waxtaan incha allahu taala jëm ko tënk sunu kem kàttan njëkk a wax nag solo si mu am bi ci jiitu mooy dogalub yàlla la ak mbokk kenn du ko lijjanti kenn du ko wutal boppam amul kenn kuy wax ne man ci famille sàngam lay bokk da ngay judd rek fekk yàlla dogal na li muy dogal ci yow bu dee famille baax tawféex la bu dee leneen am nattu la kon yàlla mooy dogal nit ki bokk fi mu bokk ñëpp ñoo bokkal ñu mën a doon it nu ñu mën a mel xamal ne sëb cëre bu yàlla dogal te yàlla du juum lu mu def moo ko jug kon ak mbokk dogalub yàlla te ab jullit nag daa bokk ci sarti ngëm al imaanu bil qadar balaa sa gëm mat rafet da ngay gëm dogalub yàlla yàlla nag moo dogal ak mbokk nit nag mën naa bokk ku mën naa bokk ku mu tiim bokk ku ko tiim bokk ku ku mu tollool waaye loolu dañ cee war a sant yàlla kon dogalub yàlla boo xam ne borom bi subhanahu moo santaane jàpp ko yaa ayuha naasu inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu moo ñu bind noonu bëgg ñu xamante ak li ci ginnaaw xamante muy jëflante wa huwa alladi xalaqa min al bashara fa jaalahu nasaban wa sihra fa jaalahu nasaban wa sihra kon moo sàkk askan yomboon na yàlla lool mu def ñu ni mu def malaaka yi malaaka yi nit ñi ëppuñ leen te malaaka amul ndey amul bàyyi kenn kon yàlla la bind jógewoo fenn kenn jógewul ci yow jógewoo ci kenn kenn jógewul ci yow yàlla manoon na waaye li xikmatin yaalamuha kenn nit la bind moom yàlla kenn nit yaa ayuha naasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida muy aadam alayhi salaam génn ci moom xawaa boole leen ñu jur nit ñëpp kon yàlla la soob nit ñi bokk di càllalonte ñenn ñi di jóge ci ñenn kon loolu lépp di mbokk muy mbokk mu gi waaye nag al aqrabu awla ñi gën a jege dañuy am aq yeneen yoo xam ne borom bi da leen koy laaj waaye ñun ñëpp ñoo bokk maam nag kullukum min aadam wa aadamu min turaab ñun ñëpp ñoo bokk maam aadam ñun ñëpp ñoo bokk maamu suuf mii maamu suuf mii ñu jog ci kaw mooy sunu maam ñun ñëpp kon am na solo ndax dogalub yàlla la te lu yàlla dogal daa war a neexub jaam ñaareel ba lu ñor yàlla la ak mbokk lu ñor suñu borom la subhanahu wa ñor gum ko ñor bokk na ci li koy firndeel atte yu bari ci lislaam sàmm ak mbokk moo tax suñu borom tëral loolu day jëmmal ñor ak mbokk ñor suñu borom bokk na ci atte li ñuy tuddee taban nii mooy adaptation dafa xaram ci lislaam mooy kenn du wax ni diw sàngam maa ko yéegal ci sama askan dafa xaram ci lislaam ci njëlbeen daan na am arab yi daan nañ ko def ba ci yonent yàlla muhammad alayhi salaatu jëloon na zayd ibnu xaarisa doomoo ko ñu daan ko wooyee sax zayd ibnu muhammad nga xam day àgg ci ñu doonante waaye ba alxuraan ñëwee ne uduuhum li abaihim huwa aqsatu indallah la araamal ak ah, ak ak ndax lan ngir sàmm askan ndax tabanni bu amee rek nit danañ ko askan fu mu nit danañ ko askan fu bokk te lislaam day bañ loolu bëggut aw askan réer moo tax nit ñi dañ leen di yéegal ci fuñ bokk kenn wërta dugal nit fu mu bokkut ngir sàmm am askanit moo tax sunu boroom araamal njaaloo ba waral ci xadd ku ko def nañ ko rey mbaa nañ ko caw téeméeri yar ba nopp yóbbu ko ci àll ba tëj ko fa at ndax lan day jur nit ku juddu ñëw àdduna te amul askan wu bokk xam ngeen ne doomi Yàlla amul askan ci sariya amul bàyyi bokkul fenn loolu la lislaam di bañ ba tax mu araamal ko wax ne ku ko def nañ ko caw téeméer bu sëngee wut bu sëngee nañ ko rey araamal xasufu mooy xas nit ku ne nit sa bàyyi juru la war nañ la caw juróom-ñett fukki ndax wax ju ñaaw la ba nit sax bu ko waxoon doomam wax ko noonu rek loolu du taxaw dañ koy caw yar yoon mbaa boog ñu def liaan bokk na ci lii war firnde loolu am na ci lislaam ñoo xam ne kenn du leen yorandoo ndax lan ndax yorandoo ko day jur ak mbokk gu yàqu ngir yàlla yàlla bëgg mbokk ñu sam mbokk yi tax mu araamal boole nit ak bàjjanam nit ak ndeyam ñaar ñu bokk ndey ak baay ndax lan ak kujje daa mën a jur ak noonu mu ne kon lépp luy tax ak mbokk yàqu kenn waru koo def loolu lépp day wane ñor gu ak mbokk ñor suñu borom mbokk yi aleykum salaam wa barakatu bi ci des it mbokk mi ngi bokk ci li ñuy tudde al kulliyatul xams wala ad daruriyatul xams yi nga xam ne mooy ad diin wan nafsu wal aql wan nasabu wal maal dañuy wax ne atte yépp ci yooyu lay dellu sàmm diine sàmm am bakkanu doomu aadama sàmm am xel sàmm askan sàmm alal atte yi ñu tëral lépp moo tax ñu tëral kon ak askan ci la bokk doonul lu tuuti doonul lu woyof mbokk yi lu mat a sàmm la lu mat a fonk la di wattaqullaha alladi tasaaluuna bihi walla arham bàyyi leen xel yàlla mi nga xam ne te bàyyi leen xel yàlla te bàyyi xel ak mbokk bàyyi xel ak mbokk kon ñor na suñu borom lool gis nga lu baax lu ñëwit borom bi day diglee ku mu ko wàcc ci moom dalay sant nga bàyyi xel say bokk moo tax yonent yàlla Muhammad ba ko yàlla yónnee bokk na ci la mu ko njëkk wax wa andir ashirataka al-aqrabin te risaala bi mu yor ñëpp ko bokk waaye bàyyi xel sa mbokk yi la gën a jege xupp leen waar leen woo leen ci lii ma la jox kon beral leen ab cër la loolu day firnde loolu walladina yasiluuna ma amara allah bi an yusal borom bi tagg na wax ne ci ñooña fa ñi mujj maa amarallahu bi an yusal nag la cay jiitu bokk na ci ak mbokk yàlla moo santaane ñu jokk ak mbokk santaane ñu dundal ko santaane ñu wormal ko ba taxi sax nag lu baax looy def lu baax looy def daf ko ci mbokk moo gën daf ko ci jàmbur yonent alayhi salaam nee na boo saraxee am miskin daf nga lu baax waaye boo saraxee sa mbokk daf nga ñaari mbaax mbaax saraxee nga jokk nga bokk as sadaqatu alal miskini sadaqa wa ala di rahimi fintaan sadaqatun wasila nga xam ne fi ne tey booy def lu baax su dee ci mbokk ñaari tuyaaba ngay am lépp looy def ci jàmbur am ca lu baax boo ko defee ci mbokk am ñaari yu baax baax kon jëf ci mbokk moo gën jëf ci jàmbur loolu it am na solo bokk na ci dénkaane yonentu alayhi salaam mas naa wax ne yéen nit ñi maa ngi leen dénk yi siiwal leen ab nuyoo seen biir fonk leen di nuyoo fu ngeen toll fonk leen joxe ñam fonk leen joxe mbokk fonk leen julli guddi bu ngeen ko defee da ngeen tàbbi aljanna ci jàmm yaa ayuha nnaasu afshu salaam wa at'imu taam wa silu l arxam wa sallu bil leyli wa nnaasu niyaam tadxulul jannata bi salaam kon bokk na ci yi nga xam ne ku koy def boo ëllëgee da nga tàbbi aljanna tàbbi gu neex am na ñuy tàbbi aljanna waaye tàbbi gàcce xas la yedd la ba ñëpp gërëm la nga door dem àjjanay gàcce waaye dugg àjjana bi sharaf moom la ab jullit war a wuti dundal ak mbokk nag dana ko maye kon lu am solo la yi nit gën a bëgg it dundal mbokk dana ko maye doomu aadama koo ci gëddoon loo gën a bëgg gudd fan ak xaalis bu bari alal ju bari yonent nee na man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa lahu fi athari fal yasil rahima ku bëgg wërsëgam gën a yaatu aw fanam gën a gudd nay jokk ak mbokk kon ñor na sunu borom lool mbokk yi am na solo lool euh, bi ci des am na xadis qudsi boo xam ne borom bi moo ne man maay yàlla maay tudd maa tudd rahmaan wax ne ci baat boobu sama tur woowu di rahmaan raxamim aw xorof yooyu ci laa xare ak mbokk parce que rahim mooy firi ak mbokk ci li si arab ci sama tur laa ko jëlee kon ku ko jokk ma jokk la ku ko dog ma dog la jokku yàlla mooy lan sàmm la aar la di la xéewalal di musal dogu yàlla nag wala asubillahi mooy mu xañ la yooyu kon kuy jokk mbokk yàlla di ko aar di ko suturaal ku dog mbokk yàlla sàgg yàlla génn ci moom yàlla na yàlla musal ci yàlla génn ci moom waaye mbokk yi ak mbokk yi doole la ku ñu néewal doole rek daa muti bokk mba anut ak bokkam quwwatun wa xisnun lil mar xool leen yàlla Shuayb ba ko noonee bëggee jekku jaaxle lu ñu mujj wax walaw la rahtuka la rajam naa wa ma anta alayna bi aziz sa mbokk rek ñu jaaxal xamu nii dafa kon ñu sàkkal la kon ku ami bokk te ànd ak ñoom mën nga mucc kon ak mbokk doole la ñàkki mbokk ak néew doole la moo tax xaki ba waxoon ni axaaka axaaka nga la waay mbokk bàyyi xel sa mbokk na man la axaa lahu ka saain ila bi gayri xusaami wala bi gayri silaahi nee na ku amuti mbokk moo kuy xare ji te yorul ngànnaay ñoo yam àgg ca toolu xare ba moo tee mu ñàkk bakkanam kon lu am solo la ñu bàyyi xel ak mbokk moo tax imaam ali karamallahu wacce daan wax naan di dénk benn mbokk ne ko na nga teral say mbokk ndax boo doon picc mën a ñooy say laaf boo doon picc xamal say mbokk ñooy say laaf bu dul ñoom doo naaw fa innaka bihim tasuulu wa bihim tatuul fooy àgg ñoo la fay àggale ak ju bari demee noonu kon lu am solo la ci lislaam mbokk yi moo tax lu mat a bàyyi xel lu mat a bàyyi xel la buñ jàpp mukk rek ne daa woyof ni ko nit ñi melal léegi loolu la ñuy baax ñëpp xamoon ku mel ne sëñ lu Khadir Mbacké mii radiyallahu anhu tey ñuy waajal bisam ku ko xam ku ne xamoon nga ko ci bëgg ak mbokk ak fonk ko ak dundal ko nit ku ma sa ñëw ci moom rek boo dee ko xam ba nga fa jógee fonk say mbokk ndax daan laaj say mbokk ñoo xam ne boo leen xamutoon da nga dem góorgóorlu xam leen ndax du du ndam du sat ci ab ab murit sa sëriñ laaj la diw sa mbokk diw nga ne xaw ma ko wala ko moom seq maamu daal bare na tey ñoo xam fii si bari nañ seen mbokk yoo xam ne xamuñ woon leen sëriñ Abdou Khadre tax ñu xam laaj la ko ne sa mbokk nga dem toppatoo ko fekk muy ko la jege miin mbokk lool xam askan lool lu ne mu xam ko ci loolu xam fi mu toll ci diine ndax ñoom amuñ jotug di yittewoo lu amul njariñ ñoom amuñ jotug di lu amul lépp luñ def seen yitte rek lu am njariñ la moo tax ñu fonk nag mbokk ak mbokk nag mbokk yi daa bari ay xàq yu ay am am solo moo tax ak yooyu nag ku nekk ci noonu war na ko xam jëm di ko dox roy ci mag ñu baax ñii ñuy fàttali ndax noonu lañ doon dunde ak yooyu nag ba ci jiitu mooy ak mbokk dañ koy xam nit lu mu xamut mënu koo jox àqam dañuy wax ne al insaanu aduwwun lima jahil lu mu réer bañ ko gis nga nit ñi saa bu ñu bëggee nga bañ dara dañuy fexe ba nga umpule ko loo ump rek bañ ko man jahila shay'an aada loolu ñu xam la kon nit ki boo xamutul mbokk du ko foog waaye ku xam ak mbokk xam la ca ne danga ko fonk danga ko jàpp moo taxoon taallamu min ansaabikum maa tasiluuna bihi arxamakum taallamu min ansaabikum loolu ndigal la na ngeen jàng ci seeni askan lu ngeen mën a jokki seeni mbokk loolu moo taxoon kilifa yi fonk ak mbokk ba ci sunu kilifa yi bari na ñoo xam ne ku ne ni sëriñ Abdou Khadre Mbacké mi ni ko ak mbokk ñarewoon muy toftalu nit ñi kenn koy mu xam fa nga bàyyi ko lu yéeme la ci woon waaye ku mel ni Alaaji bu sëyit mbokk ñor ko bind ci ay téere leeral ci lu ne sëriñ Mouhamad dem ci njaareem sëriñ sëriñ sëriñ Moussa Ka yitte yu am kawe joo xam ne taxoon nañu foog moom ba bind ci ay téere ngir bañ mbokk gi réer bëgg nit ñi xam ko te xam ngeen ne mbokk yi am na ci nit ñoo xam ne faw dañ leen di dimbali nit dana ne fii xamul fu mu bokk bu nit xëyoon xas ko mu am problème fa bokk bu ko laajee xamu ko te mi ngi am loolu yëpp xam nañ ko loolu la mag ñi doon bañ ba tax ñi waajal nit ñi di leen jàngal fu bokk ak it koo gis xam li nga bokk moo mën koo jox kon ak mbokk dañ koy jàng ko xam taallamu an nasab fa rubba rahimin majhulatin qad wusilat bi arifaani nasabi loolu sayidna omar radiallahu anhu moo ko waxoon jàngi leen askan ndax bari na ak mbokk gu ñu xamut ndax ñàkk koo xam te àq jooju dafa day farata ñu jokk ko umpule ko li ñu tudde réer du ngant maanaam sunu borom bu la jokkal ak mbokk nga ne mënumaa jokk mbokk gi ndax xawma ko loolu du ngant bu yomal xayma fi kanam sunu borom da ngay am bàkkaarug ñàkk a jokk mbokk donte xamu woon mbokk gi nga jokk kon yaa war a def effort pour xam ñi nga bokkal pour mën a jokk mbokk Euh, jokk gi nag ñaari xaaj la am na ci boo xam ne faratal ak boo xam ne dañu koo sopp farata la ci ñi nga xam ne ay maxaarim lañ ci yow ak say ndono ak say kilifa yi ci des nag dañ ko caa sopp am na ñoo xam ne xam leen farata la loolu njaaxum yi am lañ leen ngi dëkku nit ku takk ab ku takkub jarbaatam ndax xamul luñ bokk nit faatu ñu ne koy doon ñu ne xamuñ koy doon amul koy doon jël alal ji yóbbu feneen ndekete ay ndono ma ngi nit war a sëy ñu ne kuy kilifaam ñu ne amu fi kilifa ab jàmbur mayee ko yooyu yëpp ay njuumte la yoo xam ne charia du ko jégle te mi ngi am ndax lan ndax umpuli ak mbokk kon dañ koo war a xam ndax ñu man koo jokk xam nañ ne ak te xam nañ nit bu faatoo lu mu bàyyi mu néewee ko bari ay bokkam ñoo ko war a doon ak mbokk nag ni ko nit ñi simple simple wu noonu léeg nit faatoo ñu le amul ndey amul bàyyi amul ñu ne amul kenn koy doon ana ana baayam bàyyi baayam ana maam ana ñooñu seen doom li ñuy tuddee ak ab naa umuma dooyu bàyyi mën naa sori lool di doon loolu nag xam mbokk di ko jokk mooy tax mën ko wéer waaye xam nañ ne ci biir mbokk yi am na ñoo xam ne seenu dencante fa xaram buñ leen xamut bañ ànd di sëy nu ñu def te xam nañ ni mi ngi am xam nañ nit ñu takk seeni jarbaat xam nañ nit ñu takk seenu sët ndax xam ñàkk ñàkk xam bu xam-xam amoon ne xam ko wala ñi leen wër xam ko fañ koy fase la ñu ne boo xam ne lii fasuwul waaye ñëpp umpule ko loolu mi ngi am te ñàkk umpule mbokk moo ko war a ñàkk sàmm ak mbokk kilifteef it xam nañ ci sariya kilifteef gi nga xam ne doomu aadama yi dañu am ñu leen yilif rawatina bu dee jigéen bu dee jigéen nga xam ne kilifaam moo ko war a maye bu fi kilifaam nekkee keneen ku ko mën a maye te kilifaam andu ci pas-pas du baax loolu war naa tax ñu xam ñi doon ay kilifa ci noonu leneen lu am solo loo xam ne nit ñu bari dañ koy bàyyi duñ ko bàyyi xel ak mbokk li ci gàll daa bari bokk na ca li ñuy tudde diir yàlla tere bu nit loroon nit te teyu ko ñu war ko caa laaj alal alal jooju dañuy wax ne nit ki moo ki bokkam ñoo war a cotiser fay ko nga xam ne ci loolu mën ngaa gis nit di ko romb jàpp ne séqu leen dara te bu dara wàccoon ci kawam ñu fekk la fa nga nekk ne la kaay joxe xaalis xam nga dañuy wax ne ku lor nit te teyu ko téeméeri giléem bu dee góor la téeméeri giléem nga war a fay yàgg say bokk mbokk gi nag geño la ñuy xool geño ñi nga bokkal genn geño ci baay maam maamaat juróom-ñaar téeméeri góor juróom-ñaar téeméeri góor ñoo xam ne am na benn maam mu góor mu leen boole la ñuy dajale ñu cotiser joxe sëriñ Mbacke si bokk na ci li waraloon mu taalif téere boobu ci askanu maam Maharam ak maam Moxtaar mi mu bokkoon maam Maharam bàyyi xew-xew bu amoon ci askan wi ñu war a joxe moo taxul mu taalif ko ñu wër mbokk yépp laaj leen kenn ku ne joxe ñu yéwee na loola loolu jaar xam nañ ko ci histoire yoon wi histoire mbokk gi muy loo xam ne it nit ñi dañ ko umpale te fi ne mi ngi am mi ngi am bu baax baax mi ngi am bu baax a baax chauffeur si dawali oto di def lu noona ba ba faat bakkan dañuy jàpp ne rey ñàkk tey la waaye ku faatu ci oto bi sëfoor bee ki bokkam war nañu si léegi àq yooyu nag buñ ko baalewut buñ ko baalewut àq yu topp nit ki la ba faw faw nga lijjanti ko boo liggéey kon loolu bokk na ci li tax nit ñi war a xam seeni bokk ngir mën koo jokk mbokk yi euh, li ci des it mooy kenn du askanu foo bokkut te ñàkk xamu askan ak mbokk mën naa tax nit askano fu mu bokk yontu alayhi salaam nee na ku wootewu baay boo xam ne du sa baay nga ne diwa mu jur te xam nga ne juru la ba noppi nga wax ko ajjana aram na ci yow dégg nga loolu man iddaa aban fi l islaami gayra abihi yaalamu annahu gayru abihi fal jannatu alayhi haram loolu wax yonente bi alayhi salaam ku ne diwa ma jur te jurul te xam nga ne juru la yow àjjana araam na ci yow ndax da ngay réeru askan askan wayu su ko lëntal waaye waxoon na ne jëpp jigéen joo xam ne it tàbbal na tàbbal na ci aw nit ku ca bokkul séqatu yàlla dara te yàlla du ko tàbbal aljanna mooy jigéen ju am doom ne diwa jur doom ji te diw jurul doom ayyuma imra'atin adxalat ala qawmin man laysa minhum fa laysat min allahi fi shay walan yudxilaha allahu jannata waaye gu jur doom ba noppi weddi ko juruma la yowmal xiyaam bu yàlla di xool nit ñi bëtu yërmaande boo dikkee dalay du mooyu wa ayuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilay ixtajaba allahu minhu wa fadahahu ala ruusi al awalina wal axirin fa ñëpp yi daje yàlla dana la gàcceel ba ñëpp xam ne am nga gàcce kon mbokk yi askan woyofu kenn wër te wax doom juruma la doom ni koy dàqee mooy nga laab laablu ndeyam joteetoo moom ba mu am doom ngeen def li aan waatoo waaye mere ko rek ne ko juruma la sa doom juruma ko loolu ci sareer dañ lay caw yare yoon ba noppi ne la yaa jur doom ndax lan aw askan wari su ko woyofal wari su ko sàkkani kon ku weddi doom joo xam ne xam na ne moo ko jur bu yemal xeeme yàlla du mooyu ko gàcceel ko ci kanam ñëpp loolu yun alayhi salaam moo ko wax ak mbokk mooy loolu mbokk yi lu rëy la lu baax la lu am solo waaye nag lu lu ñuy sukkandikoo nag doy loo ko yem ci ab yóbbal la bu ñu yóbbaloo ngir dox waaye ku ko am nag te yóbbaluwoo doxoo doo dem fenn nag mbokk yu baax ab yóbbal la ku ko am teg nañ la ci yoon buntu escalier ne la yégal fu ne mën nga fa àgg ci baax waaye nag taxaw ci buntu bi naan fii laa yem rek du tax nga raw kenn moo taxoon am koo xoo ne la amruka mal insaanu illa bi diinihi fala tatruki taqwa tikaalan ala nasab nee na doomu aadama diine lañ koy xoole ci dëgg-dëgg bul bàyyi mukk ragal yàlla ngir bëgg a sukkandiku ci askan ndax lan laqad rafaa al islaamu salmaana farisin waxat wadaa shirku sharifa aba lahab nee na lislaam yëkkati na salmaan ma nga xam ne ca faris la bokk waaye kéefër moo wàcce ki nga xam ne ab sharif la muy abu lahab maanaam abu lahab ca ca ñu gën a euh, notable la bokk salmaan bu doon ci ñun dañuy wax ni am ñag la waaye salmaan tedd na abu lahab torox na ndax pas-pas waaye kon fala taxsabil ansaaba tunjika min laza walaw kunta tamit qaysin wa abdi madani nee na bul jàpp mukk ne aw askan kese kese mën na la musal ci sawara donte nag yaa ngi bokk ci yàq yu rëy ya ndax lan abu lahabin fi naari wa huwa ibnu hashimin wa salmaanu fil firdawsi min xarasaani abu lahab day doomi hashima maami yonentu alayhi salaam te ma nga sawara salmaan di ñag ci àll ba la jóge ma nga firdawsi àjjana ji gën a kawe kon loolu it lu ma tax xam la mbokk yi moo tax ba ndigalul wa andir ashirataka laqrabina wàccee ci yonentu yàlla muhammad alayhi salaam daa dajale waa makka ñépp la woo ca ca kaaba di di woo par néeg ba ci ay doomi boppam lu mujjee ku ne mën a la ndigal li ñëw na kaay wuyu si woote bi boo ko wuy see jariñu soo ko wuy si wul nag mën lu ma la dara jox naa ndigal ñu jaamu yàlla ci nii anqidu anfusakum mina naar wax na ko ñu ne ci ñoom yaa ma'shara quraysh anqidu anfusakum mina naar yaa nii murrat ibn kaab anqidu anfusakum mina naar yaa abdu shams noonu la ko toppee ba agsi ci baay baay taxam عباس يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت مح بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت waaye laa uxni anka mina lay shay'a waaye ànd ak loolu lépp nag nee na xayra anna lakum rahiman sa abulluha bi balaliha mbokk gi moom dinaa ko dundal bu ngeen wuy si ak bu ngeen wuy si foofu la mbokk tollu mbokk yi ñi lànk bañ a wuy si di yéefar sax dañ koo sant mu jokk seenu bokk kon naka moo ñi nga ñi wuy ngeen bokk pas-pas kon lu ñu war a jàppale lu ñu war a bokk la euh, pas-pas bu am solo dana yéegal nit yi Salman moom moo doon wax léegi bari njàmbaar loolu ci lislaam benn bis saxaaba yi dañ ko doon xëccoo ku ne naan Salman ñun la bokk Salmanu minna Salmanu minna yonent yàlla Muhammad génn alayhi salaam dégg ñu wax mu ne leen Salmanu minna ahlal bayt ñun la bokk ñun pas-pas lu am solo la lu am solo la mbokk yi juddu baax na lool rafet na lool waaye nag pas-pas am na solo kon yooyu ñu bàyyi ko xel ak mbokk nag kon li ci war mooy jokk dañ ko jokk te bañ koo daw jokk nag boroom xam-xam yi dañ koy tënk ñu ne mooy ñaar lépp loo mën a àggale ci mbokk mi ci yiw nga àggale ko ci moom lépp loo ko mën a fanqal ci safaan nga faxal ko ku mën a defal mbokkam yiw te defalu ko ko dog nag mbokk ku mën a fanqal mbokkam safaan mu seetaan ko ba mu dal ko dog nag mbokk kon gudd gàtt silatu rahim mooy isaalu ma am kana min al wa dafu am kana min loolu nag lu yaatu la loo xam ne boo ko doon tas waaye da gis ne bu ñu doon joxe misaal sëy Abdou Khadir Mbàkke lañ doon day joxe misaal lépp lu mas a am ci lu baax bokk na ko ci bokkam fu masa mas dégg it mbokk mu ne ci dara ab aw tiis dimbali na ko ci saayar ci baati kon mooy lu lu mu mënal mbokkam ci lu baax defal na ko ko waaye lu mu mën a fanqal mbokkam ci safaan fanqal na ko ñaar yooyu nag mooy téye mbokk saa boo seetaanee sa mbokk mën na ci tiis nga mën koo dimbali dimbali woo ko waxumal dimbali sa léeg-léeg nga di ko yéene dog ko tu mbokk te ak mbokk nag ku ko dog yàlla dog Abu Zar al-Ghafari radiyallahu anhu doon na wax ne sama xarit ba dénkoon na ma ne ma naay jokk sama mbokk donte mbokk gi damaa wan ginnaaw aw saani yi bi silati rahimi wa in adbara nee na say mbokk donte dañ laa wan ginnaaw masalan du la nuyu bu amee xew du la ko yëgal bu mu te boo ko romee nuyu boo xew la yëg la waaye faale wu duma ko faale mbaam bu la weqee nga weq ko ñaari ximaar ngeen jeex nit danga koy tane waaye dafante moom amul njariñ mbokk yi ku mës gën it li nga gëne mooy nungul nit ñi lu ñu la nungul moo tax aw saani bi salati rahim wayin at bara yonent ay salaam nee na amul ci bàkkaar yi bàkkaar boo xam ne yayoo yàlla mbugal borom ci saasa ak dikk ko yéen mbugal yomal xiyaam bàkkaar bu ci toll ne dog dog nee ku koy dog rek fa nga nekk ci saasa yaayoo nga mbugal xam nga da dégg mag ngi naan ku fecc woo la ren bu ba déwén mu jig dañ la koo wax mbokk lañ ci jublu dëgg-dëgg ñaare nit du ko def rek dund ba déwén mu jig ko bu dee dëgg tem tay ko du ko jig kon loolu it mbokk yi lu mat a bàyyi xel la lu baree bari nag la ñuy jokki mbokk lu baree bari bokk na ca ak mbokk bokk na ca li koy jokk di nemmi konte nemmi konte ay mbokk dañuy nemmi konte ku ne xam na ne Sëriñ Abdou Khadre Mbacké programme am li ci ëpp ay tukki la woon di seeti ay mbokk pas-pas mbokki deret mbokki diine at mépp xamoon nañ fu ne dafa dem mbokk yëpp di ku seet siit muy seet si ñëpp loolu ci dundal mbokk la bokk nit sax seet na ba tey ñoo xam ne nit ñi dañuy jàpp ne dara jaam ak maqaama di ko yàlla jox sax wër dem di seeti kooku ndax néew doole kooku waaye mbokk gee fi nekk mbokk yi nit lu lu néew néew doole mbokk la ak mbokk yàlla da ko jokklu moom loolu la xamoon di ko dundal lu bàyyi xel waaye ku néew doole nga sànni rek mu solo di mbokk yi nit daa war a sant yàlla ci mbokkam bu leen tanee na sant yàlla ndax defut lu tax yàlla yéegi ko wàcc leen waaye bu la say mbokk tane santal yàlla ndax am na ñu am amut ay mbokk ba di leen tane am na ñoo xam ne fañ nekk bokkuñu fa kenn kon lu ci mën a xew rek nit ki daa war a daal day wax alhamdulilahi ala kulli xaal xaal ba mën a nekk del sant yàlla su dana am kon di siyaarante nga xam ne day mel ne jataay bii mën si na ko dugal ci cadre boobu tey jii ñi fi dajee siyaare si njabootu sëñ Modou Yonni bari na ci ñoo xam ne mën naam gëjoon nañ kon ak mbokk dund na kilifa yi bëgg nañ ubbi ku amaat loolu lu jariñ lu am jariñ ndax ay mbokk pas-pas fu ñu daje mbokki deret saafoonte suñu borom dana ci jóg yërëm leen waaye di seeti nit comme ni ñu def nii di gane ji di ganale mbokk day gane ji di ganale waaye koo xam ne ku leen daa fa ñëw nga jox nga jox ko lay bis bu ñu jox rek du ma fa nekk mu mbokk matul mbokk waaye koo xam ne it nag ku la ganasi rek nga gaññi nga am tuuti nga jox ko ko bu bu bu bu bu nee damay dem rek doo ko ne sax doo yenn ci sax nga ne ko mënu euh, kon bu beneenee koo koy dund lu mbokk ndax ñaar rek manaam nga am loo ko mën a ganalee ci taraanga yi adduna boo ko amut jox ko la sëriñ bi nee na bashashatu wajhil mar'i xayru minal qira kon nit du ñàkk lu mu ganale bokkam yooyu ñu bàyyi ko xel mbokk yu baax a baax euh, ak nag di nemmiku sa mbokk di ko laaj xam nga tey dem ci barab Sëriñ Abdou Khadre Mbacké la daan def nit day ñëw nuyu ko mu ne ko ana boo demee nga nuyul ma ko bu àggee wax ko ko mu ne ko Sëriñ Abdou Khadre la ko wax mu ne ko waaw xol ba sedd mu fat xool ni kilifa gu toll noonu xelam di dem ci moom yiw bu ca nekk loolu rek lu rëy la moo tax saabu la sa mbokk nuy see laaj ko wala fi nag bokk na ci leen yàlla baaxal seen jàmmante yi bariwul njariñ waaye yooyu am na ci njariñ ana diw ana diw ana nangam naa ko faral di wax bari na ci jàmmante yoo xam ne moom ay laaj yoo xam ne soxlawoo ci tontu la loolu waaye nag laaj mbokk moom am na solo ana diw mbaa ma jàmm wéradee nga nag mbaa tane na bu tukkee nga ne ko baa ñibbisi na da ngeen ko dégg loolu lépp ndax bu ko déggee dana ko neex saabu bu ne ndax kay ñu dégg ñu ne ko doon na laaj doon na lu yóbbanti am yoo loolu ci buntu jokki mbokk la mbokk yi ak nag jokkalante ay teraanga jokkalante ay teraanga jole salaam noonu na dee leen mayante ay kado ndax dana tax ngeen bëggante kon mag ñi xamoon nañ leen ku mës a dee seet diw bu amul dara it dana jënd guro yi ubbaale wala mu jënd tàngal buy demit nga seet loo ko jox mooy mu yóbbaale teraanga yooyu yëpp bokk na ci dund ak mbokk yu baax ak saraxe nag saraxe ak maye nag leen wutale mooy may ki nga koy jox du ko aajowoo waaye dundal ak mbokk moo tax nga di ko jox masalan ki boo boo boo defaree sa gàtt tibb ndab yépp ko keneen kooku saraxoo ko danga ko may ndax am na ko waaye teraanga la te teraanga des ko delloo ndax ci baax yi la bokk si ngeen Mm, sëñ dut sekk buñ maqdaat mm-hmm. bi mu joxee sëriñ bi taraanga tàndarma la woon yaakaar naa am lu tax sëñ bi nar a gàntu ay bayit la ko boole ne ko hada wiaun xawa tamran li hadratikum an raddihi xiina yuhda qad nahannaahi sëriñ bi daa ko koy nangul baax a baax kon joxlante taraanga daa bokk ci dundal ak bokk dara jërul xeeb na teraanga dara jëru cee xeeb dara jëru cee xeeb joxeel rek ndax pas-pas bi lay tekki day gis ñëw ci nit mu kot koti indi génneel tuuti jox la waaye yéen a jam ko joxee moo lay xamal ne bu amoon adduna biir jox la ko loolu nag ku mu seddu sa xol dara du seddu sa xol da nga yëg ne kii yéen na la aw yiw yéen na la jàmm yéen na la nga am bunt yi mel noonu ci la ñuy jokki ak mbokk mbokk yi ak nag wan nit ñi ak mbëggeel ak yërmande bu nit nee ci boo ko gisee nga yëg yëg yëgal ko ne ko yëg naa jafe-jafe yi waaye nit ci problème ngay rey rek naa ko sax yow looy def dugg ci loolu loolu day yàqu mbokk danañu dal nag di ko rey rek saa yu ni mu sàggan nag yàlla sàgganut boo demee góorgóorlu na ba tey yooyu day yàq ak mbokk ak nag wormaal nit bokk na ci li ñuy dundale mbokk wormaal ku am cër ci yow jox ko ku am cër ci yow jox ko du la wàññi dara waaye xañe cër bariwul njariñ te yàlla dogal li muy dogal dogal na ko ba kuy sa kilifa nangul mu nekk sa kilifa bu jagee santal yàlla bu jage de muñal muñal ndax ab jaam diggante ak shukuru wa sabru la war ne di muñ nattu yi di sant xéewal yi waaye leen waru fee nekk waaye nag nit ñi dañuy bokk mu seeni mbégte sëñ Touba xewale bis bu rëyee nii nga xam ne bis gënu koo rëy ci moom woo la ci ñëwoo te mu benn ngant loolu da yàqu mbokk loolu da yàq ak mbokk naqar aw ak nag wàcce nit ñi seeni wàccuwaay bàyyi yi ñu nangu ne bàyyi lañ nijaay ñu nangu ne nijaay lañ maam yi ñu nangu ne maam lañ jarbaat yi nangu ne jarbaat lañ ak yooyu wolof bokk na ci li ko yàlla dimbalee bokk na ci li mu fonkee mbokk daa kariyee sax ci mbokk loo xam ne ñoom dong ñoo ko am maanaam yumpaañ weneen xeet amu ko kenn xamul lu ngeen mbokk yàgg sa yumpaañ waaye karee nañ ak mbokk goo xam ne ngir bañ nga sàllalu loolu am solo lu am solo la nga xam ne ñëpp rek wutal nañ leen luñ doon ci yow yumpaañ mooy soxna su nijaay te it am na solo ndax ëllëg mën na laa may soxla hmm. am solo la yooyu mat naa bàyyi xel ak nag mbokk moo yëg ne wéré dina nga seeti waaye diw dégg naa daawob ñëpp di ko seeti koo dajal ne ko fu mu toll taya nañ waaw taya na bu ah kon kon ma ma ngay xëkki mu mel ne da nga yéene woon mu nangam nit bu wéré dee demal seeti ko ñaanal ko yàlla jéego booy dem ak booy ñëw tuyaaba la doy salaam nee na ku seeti nit ku seeti nit euh, wax ne ñu ko waxeeti asalullah al asim rabbal arsil asim an yashfiyak juróom-ñaari yoon bu ab diggam jeexut dana wér xoloowu yiw kon seeti ki wopp ngir ñaanal ko asalullah al azim rabbal arsil azim an yashfiyak juróom-ñaari yoon maa ngi ñaan yàlla mu màgg mi te moom aras ju mag ja mu saa mu mu mu tàggal la sa jàngoro ji yonent bi salaam moo ne ku ko wax ku seeti koop ñaanal ko ko wax ko juróom-ñaar yoon bu ab diggam jeexul dana kon yooyu yu baax la mbokk yi mat a ak nag bu faatoo nga topp ci néewam ànd ci rob yi yonent bi salaam nee na fekkee ni ku faatu nga ànd ca rob ba tuyaabaa nga ci ju toll ne jabalu Uhud ànd ci jullee ga naka noonu beneen tuyaab bu toll ne jabalu Uhud ma ngi ànd ci rob ba kon ñaari tuyaaba la kon ku fekkee jullee gi fekkee rob ba nga am nga ñaari xiiraat ñu ne ko yu toll naan mu ni jabal Uhud jabal Uhud nag mbokk yi ay ay montagne mu rëy rëy la te bàyyi leen xel ne yomal xiyam jëf yi dañ koy teg ci ay balaas di ko peese kuñ jël lu toll ne montagne yooyu teg balaas nag kiilu te dem ci ay armeel gungee jullit bu faatu da koy may rawatina bu dee sa mbokk te loolu ko ne xamoon na Sëñ Abdou Khadre Mbacké ni mu sawaree woon ci toppatoo xam nañ fii tey bi suñu borom dogalee li mu dogal ci moom Sëñ Abdou Khadre Mbacké wàcc liggéey mbooloo mépp di kër kër yi am nit kuñ ko tàggee mu ne dem bu ne mu ñëw mu taxawu ñëpp jaaxle ci te tam dogu ci dem jullee ji ko ndax jàpp ne ne ci ay warteefa mi mu warti daj la bokk te moos am nañu ko taxawal waaye xam li loolu di tekki ñooñu ñoo royukaayu mbokk yi mbokk bu la wooyee demal wujjiku ndax bu la joxut dan la wax waaye tànqob lu woote mbokk day dog ak mbokk ak dafar ak mbokk la saa boo déggee diggante bu rab bu ñaaw fexe ba defar ko yëpp salaam nee na ci sax na ci hadis borom xam-xam wax ne wax lu amut daganut fen waaye dagan na ngir réewé na lu mbokk diw nee na diw nee na bañ juboo te fekk kenn waxut dara bàkkaar ba ci waroon nekk jéggal nañ la ko ndax mbokk gi nga defar te fen nag buñ bàyyee xel ni mu rëyee day yëngal aras lu yëngal aras nag fu ñu ko mayee rek loolu am na solo kon nit wax lu amut ngir ak mbokk defaru léegi nag nit ñi dañuy wax lu amut ngir yàq ak mbokk loolu moo tax moytu la mbokk yi baax a baax beneen bi mooy ay mbokk da nga leen di ñaanal di leen ñaanal ndax yëpp day salaam nee na ñaanal sa mbokk fu mu nekkul yàlla du ko gàddu nga jékki-jékki rek yëg ni diw sama mbokk mi ngi ci jafe-jafe la nangam nga nga beru fenn dafal ko ab dog ñaan ko ngir yàlla waaye nag bu ko ko yónnee naan ko naan dafal naa la nangam wala muy muy borom mus tuut nga nga di ko woo naa ko bii ci yow fanaan danga koy def ngir yàlla kay boo dajee moom bu mu ko wax bu mu xam ne def ko yàlla xam na ko te yàlla tax ngay def bu waaye mbokk yi nag dañ koy digal di ko tare asaakitu an il xaqi cheytaanun axras la wax ku noppi ci dëgg seytaane su muu nga maanaam mbokk yi nag du ne ci nu dul noona ba noppi nag nga bako ca naan damaa dama ko nangam manis naa wax dëgg te doo wax lu ñaaw doo ñàkk teggi waaye nag digle ak tere moom daa bokk ci war diggante saa boo gisee sa mbokk dul noona woo ko ci pet yow ko gis na nga def loo xam ne xanaa yow xamu yaay kan wax ak moom ci nuru sëñ Abdou Khadir Mbacke ci saraaxa gis ngeen mbokk ma may ñëwoon nay jébbalu ba noppi yor ab lamam ci loxoom mu ne ko ñaanal ko bu noppi nangul ko lépp ne ko am nga jigéen mu ne ko waaw mu ne demee nga jox ko ko yii ñoo koy takk lu bari ci nun nag taalibe yi dañuy takkil ay long long ak loolu la takk ñëw nga ne ceel loolu nag mat a bàyyi xel nañu roy seen doxaate ci yooyu ak mbokk nag mbokk yi bokk na ci lii tax li dimbali nit ñu man koo jokk rafet njort lu yàqu ci àdduna ñaaw njort ko yàqu kon bu ñu bëggee mbokk di dund nañu rafet njort lu sa mbokk def rek firi ko firi bu rafet diw romb na fii nuyu la ah daa ne ci ay soxla yu xat rek boo xam ne ni sëriñ Fallou radiyallahu anhu nit daa ñëw ne ko diw de moom man jaaxal na ma julli gi muy julli daal ni mu yeexe daal mu ne ko ah da ko bëgg a jox àq rek nee na benn mu def ne ko ah ma ne diw jaaxal na ma julli gaaw gaaw goo xam daal mu ne ko daa bañ dara dara ko yàqu dugg ci rek loolu mooy lépp nga taawil ko taawil bu rafet mooy dafa njort waaye ñaaw njort moom seytaane ci lay potal du yàqu diggante yëpp boo séenee koy wax sax mu da nga ne man lay wax kon rafet njort bokk na ci lii dund ak mbokk ak nag jéema bëgg bëgg lu nit ñi léeg-léeg sa xol du bëgg ni koy jëm ko bëgg foofu la nit ñi mënante bëgg bëgg lu koo bëgg safoo ku ko soof ku dul kuy may boroomam Sëriñ Tuubaa foofu la rawee nit ñi safoo ku ko soof lu jafe na ci nit ñi ñëpp ci nun ku la soof bu la séenee rek ak si nga xam ne ku la soof la ak yittewoo nag ak mbokk dañ koy yittewoo mu di la ñor nga di bàyyi xel di leen nemmiku di leen laabiire waaye nag di warom di leen warom séq séq ñoom warma moytu nag yàq ak mbokk muy xëccoo ak iñaananti ak bañanti ak xeebante yooyu da yàqu mbokk iñaan da yàqu mbokk mbokk yi te du soppi dara doomu aadama yi suñu borom noppi na ci nopp na ci ñoom ci ni ñuy mel kenn ku ne na ngay am ak na ngay mel ak fa ngay mujj borom bi noppi na ci kon iñaan jëru moo tax xakim ba waxoon ne nit ku iñaan li muy nurool mooy sawara ak cuuraay sawara daa gis cuuraay iñaane ko xet gu neex gi di ko lakk ndekete lakk googu la tax nit ñi gën koo wuti ndax ci la xet gi di gàll gëllee jëm sa ci ñoom moo taxoon sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu jàngaloon ñu waccaal qulubana ala tawaadudi bila tanazuin wala taxaasudi wala taxaasumi wala tadaaburi wala tabaagudin wala tanaafuri yooyu noonu mooy dog ak mbokk ku ci mucc rek mucc ci ak mbokk bu yàqu waaye bañ a xeebante nag mbokk yi bañ a xeebante nit ki moom ñaar rek mën a am bàyyil xel ne cosaan yëpp benn lañ ku yàlla defal nag sutura nga nekk foo xam ne ña nga askano dañ leen tudd santal yàlla ci loolu waaye bu mu tax nga xeeb keneen ndax sëriñ bi jàngale na ci masaalik wax ju ragal ju daw yaram nee na nit koo xam ne nii sa démb sobe la bi ngay dund waxtu wu ne sa biir boo faatoo doon médd diggante bi réeru xëyu xëyu xaju fi waxoon nañu ne wu kullu man yansuru fawqahul kilaab fal kalbu xayru minhu duna lirtiyaab falasta afdalu falasta afdal axi min ahadi li jahli ma tasiru fihi fi xadi kañ la nit diggan moroomam ñu ne woon démb la bis penc koo fekkul aljana yàkku gën loolu mat na bàyyi xel baax a baax moytu yi dog mbokk umpule mbokk dana ko dog gëm yàlla gu dëgërut dana dogu ak mbokk rëy day dog ak mbokk nay day yàq ak mbokk miraas mu jaarut yoon day yàq ak mbokk mbokk yi bare na tey ñu féewoo duñ tuddante miraas mu ñaaw mu jaarut yoon dong la waaye li yàlla santaane bu ko ñëpp defee ko nu jox ko àqam jàmm na ñooy kon yooyu ñu bàyyi ko xel ñaaw njort da yàqu mbokk rambaaj àndandoo yu bon jëflante ci alal du ma ta moytu la bari na ñoo xam ne dootuñ tuddanti ndax lepte fayoo la doon nax nit mu jàpp la yooyu yëpp yàqu mbokk la nañ ko bàyyi xel li ngay mujj nag mooy fàttali sama bopp fàttali mbokk yi taxawaayu sëriñ tubaa radiallahu taala anhu ci mbokk leeral mbokk yi ne sëriñ tubaa cheikh ahmadou bamba di am nay bokk te fonkoon na ko di ko jàpp xadiimu rasulillahi nag amul mbokk loolu risaala la mooy lan ku wuy si woote bi ci nga bokk ku wuy si bokkoo xadiimu rasulillahi risaala la bu ko yàlla jox ngir mu yóbbu jaam ni ëllëg aljan loolu woote la ku wuy si ci nga loolu waraloon woote boobu ngeen di dégg du bàyyi kenn du ma nijaayi kenn du magi kenn waaye Cheikh Ahmadou Bamba moom am nay bokk te jàppoon na mbokk googu di ko dundal di leen mbakar fekkul wajaal jamia ixwati wa nasabi fi rahmatin yowma shtidadi nasabi yooyu sëñ Moussa Abdou Khadre faral di wax ku bokkul ci askan wi nag bokkoo ci ñaan googu wajaal jamia ixwati wa nasabi fi rahmatin yowma shtidadi nasabi ku bokkul ci askan wi bokkoo ci ñaan googu loolu bàyyi xel mbokk la ci biir ñu mu ngeen gis ku ci daan woo sama rakk diw sama mag diw bàyyi diw ñëpp daf leen doon jox àq di leen joxi cër di dundal loola ba ci aada yi sax aada yi suñu aada yi ñi daan wax nii euh, da ko daan seq ak nit ñi diggante doomi nijaay ak doomi bàjjan kon ku fonkoon ak mbokk di ko dundal la joxe ci ay bind yu bari te it njabootam gi rawatina sëñ Abdou Khadir Mbacke bi doon na ci misaal wax naa ci biir wax ji ne amuñ jotug di yittewoo lu amul njariñ te nag ak mbokk ñoroon na leen sëñ Buxaari dem na fu ne ngir mbokk dem na fu ne ngir mbokk maa ngi mën a wat ne am na tey ay ay bërëb ay maam yoo xam ne xam nañu sëñ Buxaari Mbàkke nekkatul ci kaw suuf maam maaram mais ca ca Mbàkke Jolof ca la bokk ak mu jot daan na ko siyaare di siyaare ji maam Soxla ca naawel di siyaare ji maam Jaara Buso ci Poroxaan di dem deqale maam war anta sëli nga di dem Mbàkke di dem Njaañ maam Mbàkke Mbàkke Anta ajjuma ju nekk mu dem ci jumaa ji mbokk mu ñëw mu dem ci armée la jullee di di di teew ci ngénte yi di tudd doom yi di ndawtalu di teew ci dëj yi di jaale di nemmi ko ñu wopp ñi di leen seeti bu tam xaritee mu génne wuti mbokk mu wér di seeti ko radiyallahu taala anhu warda waxan na ñooñu ñooy royukaay yi mbokk yi kuy roy royal ci ñooñu kàddu gi ci tëje nag moom lay tëje di mbokk yi mooy ndigal li ma sama waajur sëriñ Mamor say yóbbante ci njabootu sëriñ yoon yi ndax sëriñ Tuubaa ko wax ne ko mbir mi sa mbira ndax xam nu mu demee woon ak sëriñ yoon Yoni te man am naa lu ma ci xam ndax fekke naaj lu bari ñuy seq-seq yoo xam ne wax na ne moo moroomante wut ak moom la sëñ Mamour wax ci at waaye nag ab xaritama woon boo xam ne doon na dund xarit gi ndax xam li leen boole moo tax xolam sedd ci cër bi ko sëñ Touba cër te xam na ne xam na li tax mu cër ko muy cër boo xam ne lu mat sëkk la lu mat a dundal la ndax li mu bokk sëriñ Modou ñëpp xam na ko lu bare bare la ñoo bokk ca Farimata Lo ak Astu ñoo bokk ndey ak baay Farimata jur sëñ Ibra Fari Astu Lo moo jur soxna Yoni Seck muy doomi ndeyam di doomi bàjjenam wëlbatiku nag di baayam bu dee ci askanu Mbàkke yooyu yëpp nag lu boole mu doon ko dundal ko dundal bu rafet mu ne nag moom li muy fàttali mbokk yi sëriñ Modou yónni ab juddu kenn gënu ko rafet li mbokk gi ñuy waxtaane kenn ëpp liwu ndax sëriñ Mbàkke soxna mi ko jur maam Abdou Khadir jur ko maam Balla maam Maharam waaye soxna yónni sekk ndayam it astu loo mi ko jur moo ko Farimata loo ak Abdourahman loo ñoo bokk ndey ak baay sëñ Daam Abdourahman la ci loolu man mii di wax yéen sëriñ moo du yoon ni sama baay sama nijaay bu dee ci askan wi da muy door a doon sama maam kon bàyyi la nijaay la gone yi na xam loolu euh, bokk ci meenum bëggéej taxoon ñooñu fonkoon ko lool mu yaroo ci keppaar goo xam ne it mbaax ak njub ak diine lañ leen xam sëriñ Omar Seck mi ko jàngal alxuraan di ja di nijaayam bokk ak ndeyam ndey bàyyi ku ràññi ko woon la ci njabootu sëriñ Abdu Rahmaan loolu sëriñ jóge fa dem Gédé diggante sëñ Mbàkki Busaab sëñ Xasan ak sëñ Malaay ñooñu keppaaru diine keppaaru xam-xam keppaaru njub fa la génnee jaxasoo woon loolu ak sëñ Basiiru ndax bokk gi ñu bokkoon am néeg boo tax mu nekkoon njare mu fonk lool jaxasoo woon loolu nag sëñ Maamoor ni mu ko wax ak sëñ ba fari dëkku nag moom fee ci Daaru Mbàkke ndax nijaayam la fa nekkaloon di jàng alxuraan ginnaaw ba it mu dellu si fa ba sunu borom dogal na foofa la sampe woon kër sëñ ba fari moo amoon soxna sum yoroon muy soxna ndumbe Mbàkke rakkam ju fa nekkoon moom lañ dëkk a jox sëñ Modou Diop muy soxna Seyna way jëru sëñ tubaab mii di doomi sëñ Ibra ndumbe mi bokk ak sëñ Ahmadu ndumbe ndey ak baay waaye nett lii taxawaay yu am solo yoo xam digg ma kilifa yi amoon na ko sëriñ Fàllu bokk na ci ñi ko indi Tuubaa te wax na ne ba mu dikkee dafa wax ne mbokk mu ko doon jox ne damaa bëgg boole sama ñaari rak kii maam moom ñoo bokk ndey kii maam moom ñoo bokk baay muy soxna Fatou si mu jox ko way juru sëriñ Mbàkke kon ci dundal mbokk googu gis nga mag ñi niñ doon taxawoon da ci biir sama ñaari rakk laa bëgg a boole sëñ Modou it ne ko ñëpp xame woon noonu mooy jub bëgg alxuraan ak tegu ci yoon ak doylu nee na sëriñ Moodu Xabbaan jataay bi ma sa daje moom lu ñu seqante ba mu génn mu leen kii de na ko moytu ci ak jub lañ ko mas a xam ba mu gil ba mu toll nii ak jub képp lañ ko mas a xam kon moytu leen ko. wax na yit ne keroog ba mu génnee àdduna ñu koy denc sëñ Abib Mbàkke imaam ba mu ko tiimee daa wax ne kii de bu sëriñ bi dellu si woon du soppi dara ci ni mu doon dox. ñooñu nag doy nañu seere mbokk yi nit nag ku nekkee ci àdduna ñu xam la ci njal bi ba ci mucc ak njub ak mbaax bëgg alxuraan man xam naa ko ba tàyyi daje nañ ci bedd mi mu jógee jumaa ja ci kaamil bi wala jàkka ji dellu si këram amul fenn fu mu jëm amul soxla feneen xanaa léeg-léeg mu dem siyaare ji si Abdou Khadir dellu si waat te gudd noo fan nag ku gudd fan lool nag te lépp di njub kenn mësu laa xam ci dëng kenn mësa dégg lu ñu yaa ko def lu lu baax alxuraan foo ko fekk ma koy tari léeg-léeg ndeysaan mu dal daan jileeg sëñ Moxtaar ñaan ñu ñurum ñurumi rek ku tàggoo dellu ci sa alxuraan ji tari ñooñu mbokk yaayoon nañ jox leen bis yaayoon nañ fàttaliku ci ànd rafet boobul àndoon ak mbokk yi ci la àndoon ak ñoom di dund ba ni ko suñu boroom moomee kon mu am taw feex lool it yàlla defal ko njaboot it goo xam ne mu doon xeñtu ña ngi cey góor ko di jéem di jéem a jub tey jéema a te loolu nag mooy ndono li nga xam ne moom lañu ñu Sëriñ Tuubaa bàyyeel fexe bay jub te jéem a jubal jéem a jub te jéem a jubal ku ne war na ko bàyyi xel ci boppam bàyyi ko xel ci njabootam fexe ba it la sa la nga fekk muy ndono lu baax nga fexe ba dundal ko sàmm ko maam maharam day waxoon na ne askan wi ku ci wattu alxuraan te jub maa la warul bari dam ko waxee ba tey gisaguñ lu ko dindi Sëriñ Tuubaa ñëw nag di xar baax boo xam ne lépp la yëkkati yokku loolu ku ci bokk am nga wasas yi xew ci jamono ngi tuur lu ca dégg am na ñaw na loolu mbokk yi say maam say bàyyi taxawal njënne diine yow nga taxaw di mabu diine kon mi ngi bàyyiloo xel mbokk yi nañu yëg ndono loolu mag ñii de ñoom sàmm nañ seen ndono yaroon nañ ci seen njabooti ba bu ñu leen bàyyee seen xel dal na ci ñoom nee na li misli hada fal yaamalil aamiluun wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu